waaw waaw kay jërëjëf waaw tigi Désiré Ndiaye Désiré Ndiaye si biir waay waaw. waaw waaw kay Amine Diouf Amine Diouf Amine Amine Amine Diouf kay Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kay traité la woon train ci tubaab traité traité traité fekk naa ko Podor mu nekk préfet ba fekk naa ko Sokone mu nekk préfet ci jamono tubaab yi traité traité pré waaw laay day kii noo dëkk ci tingi lu sell du sakkan du bari sunguf du tol ni ngar xam nga lu tax ngar dafa sellul móota nga ca cukka nga ca xetaxa nga ca coxo nga ca waaye dañ ko génnee ba mu sell nga xam ne ku la ko taxal guddiit nga mën koo war naa su ci lekkat la mujj saar yëpp kaar ci saar yi gën a gàtt la yàlla tudd ci nabi tudd ci ajjana tudd ci safara tudd ci jullit tudd ci yéefar boppam rek mu yem ci boppam képp ne bi nekk ni ci xare Tabuk xeex bi metti lool Jibril romb ko relanti jéy sa ba tolloog moom ne bi ne ko foo jëm te maa ngi fii mu ne ko yoruma courrier service la dox yor ñaar fukki junne malaaka la àndal Muawiyata ibnu Madda moo faatu ci Medina sa gannaaw xanaa bëgg laa bokk ci julli gi ne bi ne ko akal mu ne ko mën naa laa taxal suuf nga jàkkaarloog armel bi nga jàkkaarloog lu tàdd ki Jibril dafa bari doole ci quwwatin ci quwwatin ci quwwatin waxuma ci na indesal arsh laa wax réew mu yàlla masa alak Jibril la fay yebal mbaggam càmm ñoom lay roof ci suuf si juróom-ñaar di déglu commandement bu heure bi jibee mu tëbët ñoom ba waa asamaan dégg ginaar yi sabat jigéen ñuy wal mu tourné ko la féete woon koo féete ko seetal bés na taxanal jabala keroog biñ leen indilee tawret te ñooy duñ ko laal mukk Moussa liir ko ñu ne ci tëdd diir mënuñoo mënuñoo marché ci loolu te ñoo ko laajoon tawraat ci ginnaaw firaw na la ñëw parce que deew firaw naa tax yàlla wàcce ko man Israël yi réeti ñoo ne yàlla ñoo ne Moussa sa borom bi tàggale nag sunu noon bi mu commandé nu six cent ans six cent quarante ans la Jibril dund la firaw na tudd la dund six cent quarante ans quatre cent ans yëpp chef d'état la kenn folliwu ko kenn daaneelu ko jëggaaniwul ci même réew dara noppam bi déggu ci dara lu ko naqari bëtam bi gis ci lu ko naqari mosula feebar mosula wànnent mosula siddu yàlla jay na ko ba ko su mu war doo sow doo neefara fekk wàccuro yàlla jay na ko ba quarante jours yu ne benn yoon lay soxla boppam ci wateer mais bi ko yàlla yi dab di ko fuddi ndiggu maturité bi kenn manqué wul ak ni bépp nga ànd ak moom bañ naan inaa la mudrikuun Moussa Gora naan kallaa xam nga lu tax kallaa inna ma'i rabbi te lu yàgg-yàgg sa yëtiin téere yi ne nañu Moussa saalit na ndax poopoo la ko it tawat naan ko gaa yaa ngi ñëw mu fàtte tuubi yàlla naan ki ma yara nga ànd ak man borom teraanga jaa ngi ànd ak man xamatul ne yàlla tudd ngir tiit waxatul nag mu ngi ànd ak nun daf ne mu ngi ànd ak man kon ñi ci def fu ñu jëm xamatu nit góor gi inna rabbi la wax xam nga ne bi fañ ko tasoon a gën a seere bi xariira àndul ak kenn bu wëlbati ko loxoom dal ci xeer mu wëlbati ko doxoom dal ci xeer yéefar yi ñëw tiim ko lu mu wax Ababacar la téye leen lu mu ko wax inna
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله أكبر صدق الله العظيم وبلغ رسول المشاركة فأنزل الله عليك الفخر جوكم بصير كنت أنا محمد يا هو ولا كان هو بكرين بكرين وقت هم؟ يا رسول الله يا wa damiruhu ak saxir googu ko moom ay damiram mu xayala inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa naziran li tuuminu billahi wa rasuli wa tuaziruhu pour kan la wa tuwaqiruhu pour kan la wa tusadduhu pour pour kan la damir yaa moo ko toftale di mu xayara nag bokk ñu fu ñu dellu bokk ñu ki ñu dellu maa la ko wax hey bul tiit inna allaha maana sama doom ji jàngal na ay jàngal ma ay jàng na ay bi jàngin wu kenn mënul kaa ku dul ku jàng fa mu jàngee waaw yàlla ne ne Moustapha bi su ngeen takkatoo seetaan ko it du tax mu perdre ndax def na attaquement boo xam ne daf ko piiru kenn fekkewu ko te moo jël poire moom mooy keroog bañ ko dugal yi ci xurma ku mu àndaloon ku mu àndaloon kenn nit piiru nag geex moom kenn huit jours génn màkkatal mu karama jëmme dina su mën a war a sans arme sans soldat kon bu ngeen ko jim kon bu ngeen ko dimbalewul it yéen ci dee borom bi dimbale na ko te àndul ak kenn ah mu ne Mohammed bëggul a fekk julli gi mu ne ko ah kay mu taxañal ko suuf gis nga gis nga boo fa boon tey bant samp ko gàll ci benn bant muy langaan nga dëgg ci benn kesi bant bi na muy sulkame noonu li jibril bare doole fu mu samp testam bi tere addina bépp day jóg tim ko si kuwati keroog bi gars yi ne duñu nangu condition tawret yàlla daf ko ne surtout li popol bi toll ñu seet ko muy sept cent soixante dix sept yaatuwaay ci kilomètre mu ne ko seetal ci montagne àddina yi boo xam ne boo ko yëkkatee mu mën leen daj ñoom ñëpp nga téemale leen ko suñu nangoo nga daaneel ko seet ko mu buddi daj piis na tax na jabar moom kenn waaw moo bari doole mu ne nii ca Tabuk midi su mën a war a sulka na bi jàkkaarloo niw xam nga ci at yi passé coow lu bari am na fii ci Dakar ci di julee ko fi nekkul xam nga ko fi deewoon kilifa la kilifa gu siiw la ci côté wàllu àddina ñu sant ñi jiite diine ji am ci ñenn nag ñu leen jullee ci seen i jàkk ñiiw mënu la koy julli te teguloo ko bët ku dul rasulillah te it ku def ci moom exemple uute ngeen ndax moom dañ koy yëkkati nii bu ma jàkkaarloo moom Jibril la nga ànd ak juróom ñett ki junay malaaka ne yonent bi nag ñi ma àndal bu la yéem Mikaayil jàll na sànq mu ngi ànd ak juróom ñett ki junay malaaka Israayil ngi ñëw ànd ak juróom ñett ki junay malaayka ngir ñu fekk ji rodob Muawiya mais ba ko nabi ne ban daraja la amee lii daf ko ne da daan bëree jàng xul wala wax suy dem di ko wax buy ñëw di ko wax bu toogee wax ko bu taxawee wax ko ci la amee darajaam juri ji gàtt na toor te bëri njëriñ lépp lu am njëriñ suñu borom ñaare ci lutfum xamme nga roof duudu ak rahim roof ak rahim xamme nga leen les tarki boo gis ci alquran ak ñaar dañuy jëkk génne raaf door wax rahim te normalement rahim war a jiitu raaf topp ci parce que moo ëpp doole rahim mais atte yi boobu dina ñëw léegi ci ñaari saar yi ñu dese ba fii toujours ku ci amul soxla ñi néew doole ah ñu ñu néew doole ëpp soxla ci puso am déet jaay wuñ ko piréem parce que li tax jaay wuñ ko piréem buñ ko jaay woon piréem ñi néew doole def yaramu neen ndax ñoo ëpp lu ñuy xottee kule te duñu am njëkk waaye ci piri puso piri puso puso waroon a gën a seer dara parce que mooy fekk lu tasaaroo mu defaat ko muy benn mais njëriñam lu matale looloo tax yàlla yombalal ko ba ku néew doole jëti ci ku bari doole jëti am seetlu woo loolu ku loolaaw ni mu bëree njëriñ su tollu woon ne bàqara noo ci jëriñoo bu bu meloon ni usi ku ma laaw si awlaad bi comme nag ku ci jëriñu bu yemoon ni isa sam bi xoyaat ku ci jëriñu mu nga fayka ngir njëriñ lu bari mu ngi mel ni tomb bii tomb bii tolluwul ni jë tolluwul ni napp tolluwul ni ndom te moo lay giide bët ah waaye ñaareelu yomb rek ñu wooye pal ko toujours dinaa ko wax xale yu jóob dafa leen di wax ne yo yomb bu mu ëpp baaxul nag oyof bu mu ëpp baaxul nag الرجل المؤمن قوي دل عند الله من رجل مؤمن ضعيف am déet foog nga am caractère tuuti place yi ñuy lekk ci Sénégal bu ci gën a neex diggante fufu fupp kanja laaxi caaxaan ceeb bi roof ceeb bi cile kañ ci laa jëm foo fekk dégg naa sax barke dafa ñëw dañ doon def dañ doon def concours yu togg ñàkk kuñ koy tuddee ndax ku sant Cissé ma saa Cissé waroon naa ko mën a gis àlla xew dafa ne ko yow mii yow lii nga fi bàyyi laa wala xootu ma saa Cissé fu ñuy limee palaat yu neex yi lu ñu lim lim doo dégg ñu tudd ponché xam nga soxna di ko fi bàyyi yomb gi mu yomb doo dem marché doo jëndi mat doo taalaale da ngay jonkan ci taatu ndaale rek tonk tuuti ndox mu pare ak neex waaw muur saar bi muy wàcc juróom-ñaar fukki junney malaaka ko guy lixlaas juróom-ñaar fukki junney malaaka ko escorté ba mu agsi ci rasul suureeku koor gàtt lool bari njëriñ lool ñettam mooy way ñettam ñettam mooy remplacer kaamil ñetti ko wala waxat boo ko jàngee jàng nga kaamil ndax alxuraan yëpp ñetti yëf rek la ki santaane ki mu ko yónni ñi ñu ko sant dige tëkku nettali ne la day ki ki nga xam ne nag moo santaane alquran yëpp mooy borom xul wala wax soo ko jàngee ñetti yoon mel na ni jàng nga kaamil bu sotti sa niiw mën nga ko jàng kaamil na bi ne na kan ci yéen moo mën jàng juróomi kaamil bu julee géeye balaa fajar ñu ne ko yaa rasulullah kenn mënu ko mën a ana ana xul wala wax xamule ne ñetti yi kaamil la barke bi mu yor làmboo secret bi mu làmboo ngëneel gi mu làmboo yàlla na ko yàlla defal defal ko pénc mi defal ko jullit yëpp def ko ci réew mi dese nañu ñaari saar ñaari saar yi téere yi wax nañ ne ki composé alquran bu dul woon yàlla li tax yàlla la nabi la te nabi yàlla ndax alquran bi nii ñu ko toftalee wàccewul noonu boobu it mujisaati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci mujisaatam yi gën a rëy mu composé alquran mu sotti niroog na mu nekk ca lawil mahfuz te wàccewul noonu nii ñu koy jànge noonu la nekk ca lawil mahfuz yi mais bi muy wàcce wàccewul noonu bi nebi nee nag oo leen ma saabi yi fabal ay sàngam defal ma ko place sàngam fabal ay sàngam defal ma ko place sàngam mu def ci ay badi badi badi yoo xam ne badi asaniya la ak maanabi yu xamal Basiru alquran kaar li ci nekk kenn mënu ko wax Cheikh na Tijaani Chérif ne na ko doon def bër bu set nga jaar ci alquran téeméeri yoon te doo def yoon wane nga am ci dégg gu bokkul ak gawoon te dégg gépp di dëgg defe nga xam alquran gisu la ne vingt trois ans la alquran wàcc keroog bi mu commencé ñu ne ko iqra ak bi nga ko ne wattaqu yawman turja'una fiihi ila llaahi summa tuwaffaa kullu nafsin vingt trois ans la yu manqué wul weer manqué wul heure manqué wul minute xamul ama tàqal wala loolu badia bu réy ci nekk fatiha vingt trois mu baat la fatiha naasi vingt trois baat la alxuraan wàcce vingt trois sax kere bañ bàccee kere bañ wàccee wala ni wax allahu nafsan isa jaajaluha yonent bi dafa wax lii ne ko placel ma ko ci soixante-troisième aaya saar soixante-troisième saar boo dalee baqara di wàññe ba isa jaa akal munafiqun mooy soixante-trois yi ndeke da doon signalé nabi ne ko soixante-trois ans ngay am génn àddina ba soo ko yëmatul jona fi al sumatu fa kullu nafsin soo ko ak soo ko soo ko calculé la mu lay jox mooy suur yi nabi am midina bi mu bi mu bi mu tox ñu wax nag ne sàllaxi fii mu placé du palaasam la niru ci maanaam naa si fële mu ne mooy placé sàllaxi te sàllaxi ne mooy placé nag waaye biñ ko gëstoo it gis nañ ne ni ko Moustapha teree ni la xam nga lu tax ba ci أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا غب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاقد إذا حقد saar wi jeexul ñaata yoon lañ ci tudd yàlla benn yoon am déet du sàll fàllax ñaata yoon lañ ci tudd yàlla benn yoon bi rabil fàlla fi rek la wax naa si ñaata yoon lañ ci tudd yàlla bi rabi naa si maliki naa si ilahi naa si tudd nañu ci saar woowu yàlla ñetti yoon ngir muslu leen na kepp tudd ko bii benn yoon ngir muslu ci ñeenti yëpp benn bal bu daanee ñeenti rab ak wenn rab boo xam ne ñeenti bal taxu ko àgg suuf uti nañu waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw qul a'uudu bi rabbil falaq kepp nga ne min sharri ma xalaq banka si laaraw wa min sharri xaasiqin idaa waqab bankal wa min sharri nafaasaati fil uqad bankal wa min sharri xaasidin quatre fois benn bal bu daaneel ñeenti rab kii ne moom a'uudu bi rabbi naas doy ko mu ne maliki naas laa wax doy ñu ne ilaahi naas lu ma lu ma muslu ci lenn rek min seri waswaasi mi nga xam ne xanaa ci lazi yuwaswisu fi suduuri naas minal jinnati wal naas ma ne benn bal bu daaneel ñeenti rab ak benn rab bu ñeenti bal mënu la ñetti bal mënu la daaneel am nañu différence waaw kay li waraloon nag ñu gis na dañ ko war a safaani fàllaq yi lu mu doon muslu ci jëm naa si lu muy muslu rox roo ëpp wala ruu moo ëpp waloor jëm kon bu ñuy gindi li ëpp waloor la ñu war a jëkke dañ waroon a jukkee ruux ba noppi door a wax ci jëmm parce que ruux ëpp doole jëmm kon naasi lañ waroon a jëkk a wax moo xam ne xam nga xam ne moo yor waswaasil xanaasi lazi yuwaswisu fi suduuri naasi minal jinnati wan naas door wax ci caaxaan yi nafaasaati fil uqad ak xaasani yi fa ataba kooku di affaire yi àddina ko rek ñu di ko jëkkee di ko jëkkee di mujj ko óoróole kii waaye Ibrahima di nga ay gëstu xam nga ñëw di wax dañ ne ah loolu noonu la ndax jëmm ji li muy ñàkk-ñàkk fayda mooy sowe ruu gi waaw waaw bi ngay jëmm ji sowe ruu gi nag nag inal maluka xayyatan azaduha wa jaala aisha taxlaha adila sikaru xaas ba da am min sari ma xalaxalu des yépp dugul lu wax ñu setewaat ñetti yëf nag ardo maa ngi réewu tey sàkku muslu ci kan bi rabil falaq ci borom suba falaq bu la neex firiiku falaq moo loo xam ne biir ba yaa ngi jënoo jëmm gi waaye biir bi mën naa yàbbi leneen nen ci la cuuj nekkul ci biir tooban na ci la jiw yi nekkul ci biir jëlaw jiy génn këram te jeexagul ci la falax xuree ci ndañ amoon bagaan gu rëy ku ci judd te te di te di te bokk ci meen mi ci seen aada foog ñu këppale ci bagaan bi wóor la lu tolloog waxtoo genn wàll dóore dippi bagaan bi néeg boobu ñu ko daan def ci la nabi juddu waaye keroog bay nebbi juddoo ba ñu rax sang ko ba mu set indi ko dëpp ca bagaan nga bagaan nga def ne teel dafa ay mor am na ñu fa taxawoon yoo xam sax dal na leen ci jëba ñu gaañ déedéet du seen morom mukk du du morome ku seen morom alaaj ngay buy woy bu fil wiladati minhu jufnatan falaxat walin fi laaqu ujaaba indaxa wii wi ay intilaaqo go koo koy intilaaqo koo koy falax falaq mooy lu toj mooy lu xaar mooy lu xotteeku mooy lu bucceeku mooy lu génne mooy lu yàgg guddi ak bëccëg ku ci yàbbi moroom mi guddi mu ñuul nii ma ne bëccëg mu weex mii moo doon der mi ñu fees ko génne ci biir guddi mu ñuul nii wala guddi mu ñuul mii moo doon der bi ñu fees ko génne ci moom bëccëg mu weex mii di yàpp bi waaw boo ci dee ngi jàng yaasin oustaz de jàng na yaasin xar ne nag lu xuminu naa la insilaq mooy mooy bocceeku jaan ni jaan di def su meeku ba set wecc fab xob bi nga teg wala di sewaat xob bi bu wees yonent bi la ñu wax ne lebitu sababi nusuulu aaya bi nabi dañ ko jibaat parce que dañ ko defee pexe mu ne takkatoo nañ ko wax naa ko biir ci gàmmu gi ñetti at gasal nañ ko pax moom bu daanu ci réussiruñ ñu xeex ak moom taxu la ñu amoon ñu bëgg ñu tëru ko guddi sottiwul seen dernier pexe nag ñu ne nañ ko jibar yahud nag a dàq jibar ci mboolem li yàlla bind ñu waxanteeg labit surateeg ko jur ñu ne chaliq ne ko sunu waa ji daal tënanu ci te yéen mën ngeen tërëf jibar ñu bëggoon ngeen dimbale nu ñu wutal leen dara ngeen liggéey ñu mu ne leen bu neex ndax foog ma am peñe bi muy jaratoo foog ma am ci ñetti ñetti bëñ ñetti bëñ yu ñu dem ca jaratu ba yëpp ma ko foog ma am ko dinaa amit aslëf ci kawar gay taq ca jaratu ba moo tax yoon bëgg na boo watoo nga wut làmbu set dogat kawar ga ndax boo ko dogatulee ku ko fab liggéey ci dina la jàpp boo lelee say we loo gaaw gaaw daggaatal we bi ci digg bi lu ko may ku ko fab te mën a liggéey soo xamee turabi yu nga wala naari yu maa ngi dugg ci sa barage taxtamun fasasun bawyanun nafasun jarkasun xasakun daalawun raxasu ci table boobu ngay xamee ibu saako ci ngelaw lañ ko bind wala ci suuf wala ci safara wala ci ndox tant que arrivé foofu doo mën a liggéey ibu saako doo ko mën a dundee itam liggéey artasaja xaqada shara dinañ ko jàngi arrajada dinañ jàngi arrajada wa shar mais axtamul fasasun mooy yoon bi nga xam ne moom ngay tëral dal di xool parce que ñeenti cadre lay doon surtout arab si ci ëpp chiffre moo ngay siit léegi ligne bi mu ne man suma tur wan arab ci ëpp raa raa lu mu doon deux cent al kubir cinq yaa dix livre benn ba deux kon raa gi mooma concerne da ngay dal seet nag axtamun fasasun bawyanun latasun jarkasun xasaqun daalawun ramaan ci raxasu may naar yu toppatoo leen chiffre su war a mat sept kilos wala qualité su ngeen ko toppatee indi ko te li ma leen laaj ngeen jox ma ko dinaa ko liggéey te ma ko liggéeyee du mucc mukk ñu toppatoo chiffre indi ko mu def distat yi rasulullah ba xam ne boo nee jàkk siis bi rek tiit defe na ne bee fi toog ñu ut nag fàlleey ak fukki posoog benn combat yooyu teer ci géej te ñu naan te ñu naan day wànnanteloo nit te weex ah waaw waaw xaaxa noonu la comme bopp bi ëmb tontóori tàndarma mel noonu la mel moom la gaa yi wut dugal ci Moustapha fab wéyum fàlle yi tufli ci seen xam-xam tufli boo xam ne àndul tufli dañ ko ëpp rek dafa chat dafa baax wéqat du ci am yeewu ko ca bopp ba na bopp siif ba dem ci teen bu ñuy wax bani surayq am na ñoo xawdu taw yëpp toujours màgg toujours mooy nekk ci taatu teen bu ñu gasee teen ba noppi bu ko amul yi dinañ ko ut teg ko fa ngir bés bi ñuy wàq ci la ñuy taxaw moom la ñuy yëkkati nag roob liggéey ba ci suuf ci yàlla Muhammadu toog di mees te dara mettiwu ko couleuram di soppi am na ñoo xam ne sax jam nañ leen parce que mustasiliina ak ahlu sunna dañ ci werante te fekk ahlu sunna yi ñoo am dëgg ndax mustasiliina dañu bañ ne nabi kenn waru ko mën a ja jibar ba ba ay wéet ndax wallaahu yaxshumuka mina naas tax fekk dañu juum yaxshumuka mina naas yàlla boolewu ci feebar ak amram bi nga xam ne sawaayir la di dal nit noonu lay dal it ku yonent parce que noonu la ñu dee ni nit ñi dee yaxshumuka mina naas ci sa diina ci seen xel doo dof doo ci tàbbal lu ci bokkul rekk la waaye ahlu sunna yëpp d'accord nañu ci ngibar gi am na bul woy alaaji gay alaaji gay bul woy déedéet may ma la dara dafa guddi mooy
طبيب الأسماء والإله